salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk nuyu naa leen ziar naa leen j'espère que vous allez bien donc après vidéo bi ma def ci wàllum matérialisme eh, ma jot ci nag yenn réaction yoo xam ne si toujours négatif sax eh, jàpp naa ne ñun sénégalais yi war nañu defaraat bu baax a baax a baax suñu ay gëm-gëm ak ci li jëm ci jouissance yi ñu yàlla jox ci àddina bi ak tamit lu jëm ci wàllu bien matériel tey boo demee ci Google nga tàppe ko. baatu matérialisme lan mooy signification bi xam nga lu la Google di bindal mooy c'est une personne qui désire la jouissance euh, de la vie et des biens matériels am ko ma ne noonu li nga xamante ni mooy matérialisme lu muy signifier mooy nit ki dafay euh, xeeb nit ñi di leen doyadal euh, du am benn valeur par rapport ak relation ak nit ñi parce que matériel bi rek lay viser bu dee matérialisme mot français la da ngay dem nga daal di tàppe Google nga laaj ko la mooy matérialisme xam nga ñun tout le temps dañuy am des significations erronées de la chose jël benn moo daal di koy def mu nekk mot bu péjoratif ba nga xamante ni buñ ko étiqueté nit na nit sax mu jàpp ni moo bi xas la wala mot la bu doy waar. comme ni ma ko waxee woon noonu laa koy répété waatee on est tous on tous matérialistes léegi dañ koy assumer wala ñu bañ ko assumer foofu la coow li nekk. savoir assumer ses choix savoir assumer li nga bëgg loolu dafa bëgg ci grandeur loolu nit ñu narta réussir ci àdduna duñ ko def ndax li max naa nit ki mënoo saaga ñi nga xamante ni dañu am xaalis wala nga saaga ñi nga xam ne dañu ambitieux wala ngay xas ñi nga xamante ni dañu bëgg seen bopp bëgg avancé di lutter se battre pour aller de l'avant ba pare yow nga bëgg ne da nga bëgg a am wala danga bëgg a tekki wala da nga bëgg a egg fenn fi c'est totalement incohérent nit da ngay cohérent mooy doomu aadama yi tey dañ toll ci ère ak siècle boo xam ne les femmes et góor ñi ak jigéen ñi dañu war a conscient ci lenn mooy àddina bi boo fi nekkee nekk jullit da nga war a am ambition ci lépp. ambition nag li ci jiitu mooy nga am ambition ci sa diine sa digganteek sa borom sa relation ak sa borom gis nga sa base bu baaxee lépp dafay baax tey ku may suivre yàgg suivre sama canal. am na ci débat yoo xam ne su ma ko posé doo ci polémique parce que xam nga man may kan xam nga ci li may woote xam nga ci li may wax te xam nga fi ma jëm mais su fekkente ni tout temps euh, parce que tamit d'habitude y a des hommes malades des hommes provocateurs parce que góor ñi rek la ñoo def loolu parce que jigéen ñi duñ ko def donc góor ñi laay indesté et que ñoom laay joxoñ baaraam ñenn ci góor ñi par chance du ñëpp ñenn ci góor ñi xam ne dañoo may ay feebaru xool nga xam ne ay provocateur lañu tey da ngay ñëw wax la femme tu droit li ma wax jigéen ñi Euh, buñ leen taxé que ni jigéen ñi ay matérialiste lañu rek tax ngeen non dama matérialiste bu buñ la taxé que tu es matérialiste tu assumes bu dee matérialiste mooy bëgg lu baax waaw dama matérialiste. léegi nag góor bi bu jàppee ni waaw jigéen bi amul droit sëy ku matériel na tànn ko am diine ma tontu leen nit am nga droit tànn ku am diine ku am jukko ku boogaa ku am xaalis pourquoi pas ku bokk ci famille bu baax liste bi mën na gudd. base bi nag mooy diine ak jukko ju rafet loolu la ñu yonent bi saa sant te ginnaaw moom la ñuy roy kon moom la ñuy déggal base bi mooy diine ak jukko ju rafet lépp lu ci dolleeku bonus la te bonus boobu nag boo ko kenn xañ sa bopp bu ci nekkee da nga koy jël te bu jaree uti sax nga uti ko pourquoi pas c'est pas interdit te lépp lu xalaal comme ni ma koy waxee ñun jullit ñoo ci yaay léegi am ku ma ne waaw Fatima kon jigéen bi bu demee tànn jëkkëram mu nekk ku am diine am jukko ju rafet un bon jour jëkkër ji daal di xëy xëy alalam ñàkk alalam jeex mu daal di ñàkk kon nan lay def xanaa déggu leen ma nee naa leen ñun bi ñu waxee ambition suñu base mooy diine mooy tawxiid mooy aqida ñuy roy sunna yonent bi saa salaam kon bu ñu gisee histoire yonent yàlla ayub alayhi salaam kon yaakaar naa ni question boobu soo ma doon topp doo ma ko posé parce que xam nga en tant que Fatima. ci li may woote sama coaching c'est que ñu assumer nekk jullit di ko dund te nag booy wax ni jullit nga bu épreuve jotee keroog la lépp di leer kon bu boobaa vu que tu es une femme battante une femme ambitieuse nga taxaw ne jabaru soxna Ayub nu mu taxawoon euh, borom këram taq sa ndigg te baat soutenir sa jëkkër féete ko fa mu la féete woon ba yàlla dellu si waat wala yàlla bañ a dellu si mu nekk seen nattu mu nekk sax sababu ngeen dugg ci janatul firdaws lii mooy sama tontu yow mi nga xam ni yaa ma posé boobu question gis nga damay wax ni euh, am ambition nekk nit boo xam ni danga xam li nga bëgg xam fi nga jëm bu ko gëm-gëm bu sell lalee muy gëm yàlla muy ragal yàlla lépp lu ci des dara duñu xuuxal dara duñu tiital tey dara duñu fëq yóbbu te kenn mënuñoo jaay lenn xam nga nit ki ngay jaay dara day fekk foofu ci biir dara new fondement bi baaxul baas bi baaxul mais gis nga jigéen bi am diine kooku dara faqul bëtam te dara du ko tax a def dara moo tax ma ni matérialiste waaw mais sama ñaq sama alal yàqaaruma ko ci alalu nit kon dama ne jigéen bu nekk taqal sa ndigg nga liggéey am jom nga matérialiste waaw mais ci sa doole waa ci doole góor ñi waaye na góor bu la nar a taq bu la neexee am nga droit choisir nag koo tollool doole koo tollool doole day neex a bëreel waaw am nga ci droit loolu bu ko góor ñi bañee kooku seen problème la parce que boo toogee fee gis ne góor nga boo xam ne sa loxo jotul sa ginnaaw nga ni waaw jigéen bi di nee na bugguma wala nee na ma sëyal parce que xëy na euh, standard yi muy dundee moom niveau de vie am man sama niveau de vie dafa baax kon duma choisir léegi yow nga bëgg a xas jigéen boobu mais yaa ngi koy tooñ diine ba tey xasul jigéen boobu de wax ko dara ndax jigéen boobu dafa am droit tey bu doon gën ngeen a gëstu ci seen diine bu doon gën a xam seen diine vous rendre compte que ni ci l'islam a eu beaucoup d'histoires comme ça histoire yu bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam histoire yu bëri yu mel noonu amoon na pourtant musul gis aaya wala xadis bi wax ne jigéen dafa am toor parce que warul tànn góor boo xam ni dafa bokk ci benn giir wala benn xeet wala dafa am alal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon exiger mooy base bi na doon diine parce que diine bu fa amul kooku du la yor te du la yëram diine ak jukko ndax góor moom na am diine waaye nag dool jukko ndax bu amee diine kase kase kase du doy waaye jukko ji bu rafetee mu mun la yor yor bu rafet kon nañu assumer bëgg lu baax fii ci àddina dund àjjana ci kaw suuf soog koy dund yow mal xiyaam ñun jullit dañu war a am jom yàlla daf ñu may intelligence bu ex excellent yàlla daf ñu may xam-xam mu yonti mooy li nga xamante ni tey mooy alxuraan lépp xam-xam la yàlla daf ñu jox ay outils outillé ñu ci lépp tey bu ñu xoolee histoire yonti yi histoire sahaaba yi histoire taabiwuna yi histoire salaf saalix yi histoire lage d'or de l'islam jàng histoire l'islam xool scientifique yi ci nekk xool mathématicien yi xool macha allah euh, xam-xam niñ ko peegee woon xam-xam mooy maye alal alal du maye xam-xam de da ngay am alal nga am xam-xam alal nag mun na la fayal école nga dem jàngi xam-xam waaw waaye gis nga xam-xam bagage la boo xam ne foo jëm ànd ak moom te daf lay yokk moo tax maa leen di wax tout le temps lijjanti leen ko parce que gis nga sa gëm-gëm bu erroné da ngay am problème yi àddina te heure bu ñu tegee débat yu mel nii. nga am complexe sa xol bi dompat nga nangam nga gis sa bopp parce que uniquement moo a dit une chose nga dégg ci leneen pour prox ndollu ci wax ci loo xamante ni pour manquer respect au femmes wala pour eh, indi nit ñi ay wax yu sew wala wax de choses yoo xam ne man loolu jubluma ci loolu man li ma wax dafa leer ku ci bëgg a dégg nag lan ca bëgg a dégg di ko ci dégg ku ci dégg leneen kooku yow la engagé ndax gis nga nopp yu gar mi ñooy dégg wax yu set yu baax yu leer waaye gis nga nopp yu feebar mënul dégg lu baax te nag malheureusement su ma waxee benn wax ña ca war a dégg lañ ci war a dégg dañ koy dégg jël ko jëriñoo ko ña nga xam ne dañoo feebar seen nopp feebar mënuñu ci dégg lu baax kon provocation yee jël wax ji di ko wiir wiiree léeg ba démb am na ko signalé sama commentaire ba Facebook di ma ko notifié pour la parce que dama ne y a des hommes qui prétendent que ni dañuy dund diine te dañ koy mbubbawoo mbaal xale yi jigéen yi soit disant que waa da ngeen matérialiste man maa ngi ni yor na yor naa sama diine nangam sàngam nga dugg ci moom naan dangay jaay eh, jamono yoneen jamono eh, saxaaba yi jamono yonent yàlla Xadija ma ne on est en 2023 nañu assumer ñu accepter li nga xam ne mooy suñu génération ak suñu réalité tey lépp looy def xaalis a koy def nekkatuñu ci jamono yonent bi sallallahu pour dund ci seen jamono dañuy dund li nga xam ne mooy conseil yi ñu jëriñoo ko ci jukkoy rafet yi ci li nga xam ne mooy jukkoy sell yi mais ci li nga xamante ni tey mooy question de vie matérielle beeg li nga xam ne mooy li ñuy dund loolu dafa changé réalité yi dafa changé moo tax tey il faut que les hommes musulmans acceptent que ni femme musulmane tey dafa am droit jàng nekk intellectuel dafa am droit liggéey dafa am droit viser loin dafa am droit am ambition dafa am droit takk ndiggam dafa am droit yu bëri yoo xamante ni tey l'islam xañu ko ko te du ko tere l'essentiel mooy buy dugg ci góor ñu dugg ci góor koo xamante ni gis àddina de la même moom li muy gisee àddina pour mu bañ ko obstacle wala di utiliser religion bi pour mën koo euh, indil ay ndëgg sarax kon d'où l'importance nga sëy ku ragal yàlla ku gëm yàlla koo xamante ni aussi am na jikko ju rafet après nag yeneen bonus yi comme ni ma ko waxee ay ñoom taar ay ñoom alal ay ñoom bokk ci famille bu baax ay ñoom bokk yooyu yëpp bu ci amee nga jël ndax sa wërsëg rek lay doon te nit nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne julli bët booy viser viser loin booy ñaan yàlla bu ko ñaan yàlla may ma xaalis ñaan ko yàlla may ma def ma milliardaire booy ñaan àjjana ñaanal firdaws àdduna bii heure boo jullee del ñaan yàlla def la milliardaire te nga jël sa ci ay milliards bu mu fees heure boo yeewoo di def loola yóbbu ci milliards yooyu balaa ngaa dee daa nekk milliardaire salaamaaleykum wa rahmatulah